tey jile ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre bokk na ci li ñuy fàttaliku atum 2015 ba ñu tegee loxo imam Alioune Badara ndaw ñu koy tuumaal ni dafa laale mbirum terrorisme moom ak ñeneen ginnaaw ba ñu ko tegee ci kaso bi nag ñaari at ak juróom-ñetti weer moom ñu libéré ko 19 juillet 2018 ci diggante bi amoon na tamit procès bu amoon na moom imam Alioune Badara ndaw xam ngeen ni juróom benn fan ci weeru septembre bi ñu génn ci la wuyu ji sunu borom loolu la ñuy fàttaliku ak yeneen mbir yu xew ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre ci ay at yu wuute ñu ànd ci ak maam Mame Birame Diouf ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre atum 2020 ab gaal goo xam ne nag suux na gannaaw explosion gu am ci moteur bi loolay xewee ci ab quartier bu nekk ca Saint-Louis moom ñu ne ci biir toll ci ñaari téeméeru migrant doon dem ca Espagne ñu dëkk foofee ak presse bi xamle ni ña ca des ëpp nañu ñaar fukk président Macky Sall xamle ni ña ca faatu dañoo ëpp fukki nit ca bataaxal gu ñu jaarle ci réseaux sociaux yi moom président Macky Sall guddi dimanche jàpp altine ga mu jébbal njaalam njabootu ña nga xam ni seen doom des na ci ñaar juróom benn ci weer octobre atum gu am ci dëkk pêcheur bi di ñu ko amal bokk ci mouvement des forces démocratiques bu Casamance lu toll ci benn nit ñàkk seen bakkan juróom benn am ci ay gaañu gaañu am ñaar ñoo xam ne nag nee nañ mes kenn gisatu leen juróom benn ci weer octobre atum 2017 ca Ouagadougou comité international du mémorial bu Thomas Sankara amal ab doxu ñaxtu ngir laaj France mu yëkkati ya nga xam ni jëm na ci document yo laal faatu kii di Thomas Sankara lan mooy secret défense ndax France dafa am loo xam da koy nëbbu jëm ci faatu Thomas Sankara lu tax ñuy yëkkati loolee di secret défense googee fanweeri at gannaaw ba mu faatoo moom jiitu réew Burkina ba woon. ñu taxaw ci ñaar fukk fan juróom benn ci weeru octobre atum 2015 ndax si la ñu teg loxo ca Kaolack imam Alioune Badara ndaw mañ doon tuumaal ne moom daal loxoom setul ci mbirum terrorisme gannaaw ñaari ak juróom-ñetti weer ñu téye ko moom nag ñu bàyyi ko fukk fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet atum 2018 gannaaw bañ ko condamné ci benn weer ak sursis ngir kat jàpp ni dafa yoroon ay ngànnaay tolloodee amu ci autorisation imam ndaw moom nag génn àdduna ci dakaar juróom benn fan ci weeru septembre atum 2022 gannaaw feebar gu gàtt goo xam ni ko kon daloon na ko ci xaritam du oustaz Alioune Sall doon di dellusiwaat ci dundu oustaz Alioune Ndao daf ma ci sedd lu ma sawar lay doon ndax xam naa ko ci liggéey bi ñu bokkoon nekk xam naa ko ci bokk gi xam naa ko ci daaw bi xam naa ko ci jàkk yeeg jumaa yi bokkoo nekk Alioune Alioune Badara Ndao kenn la woon ci daara ji bëggoon xam-xam lool ak ñooñ xam-xam bëggoon alxuraan lool ak daara ak ñooñ daara liggéeyam yëpp dundam yëpp ci la ko def ba ni mu làqu ci la ko def man nag ni ma waxoon ca jamono laay waxaat ba léegi rek keroog bi ma ci laajee seet dama ne man imaam Alioune Badara ma ma xamoon lu jiitu ñu koy teg yi ñu ko tegoon nattu bi ko daroon ak bi mu nekk ci nattu bi ak bi mu génn ci nattu bi lépp mooy menn imaam Alioune Badara bi ma xamoon ci daara ci bëgg alxuraan ci bëgg jullit yi ci bëgg bennoo gi waaye ci informé wu waaye ci xam lim jàng te xam nu mu koy jàngalee amun aw fit nag lool te xamoon lim jàng daana def ay proposition yoo xam ne daf daan jékki-jékki tëral benn wax ne bii pour soqali département la bii pour soqali arrondissement la bii pour soxali région la ila axiri ila axiri ku nekk gis na proposition yi mu defoon ci jàkk yeeg jumaa yeeg bu ñu doon cotiser par vendredi loolu la meloon ànd nañ ma ak moom ak aj màkka boo xam ne buuru màkka moo nu invité woon ak moom bi nu ajee màkka réeral na fa xaalis waaye moom ci boppam waxul ne réeral naa xaalis nit ñee dem rek ba xam ne imam al Badara réer na la xaalis lañ cay def ñu door ko caa def waaye moom ngawul ngawul gémmiñam wax ne léeg-léeg naa xaalis maa ngi fàttaliku ci jamono jooy it ker bi ma defee benn bayaan jëmale ko ci benn jullit yi euh, te waxe ko ci façon benn benn façon bi dafa daal di jóg taxaw wax ca kaw wax jëm ca teg ak i seede xëy na jotaay bi du yaatu pour mën ko wax kooku daal mooy imam Alioune Badara Ndao mi nga xam ne moom ngay may laaj ci moom yàlla na yàlla yërëm ko yàlla na suufayof ci koom yàlla na bàmmeel dina fulaayam ñu ngi ñaan ñëpp ñu gën a ànd ak teey gën a ànd ak dal ndax àdduna dafa toll foo xam ne ñii not doom aadama yi bëgg leen toroxal jamono bu nekk danañ bëgg luy yëngal ay réew jaajëfal bu baax euh, Mame Birame Diouf ak euh, oustaz Alioune Sall ci témoignage yi kon euh, mortal très rapidement procès bi mu ngi ubbi woon 9 avril 2018 ñu ngi woon 30 ñu leen doon tuumaal mbirum terrorisme ak laale ak Boko Haram ak yu ni mel mm. procureur bi mu sàkk woon diisoon na lool waaye finalement benn mois ak sursis pour détention d'armes sax mm. lañ ko condamné loo xam ne tëddoon na ko ba noppi maanaam feewu terrorisme yi dañ ko dindi woon waaw parce que moom tëdd na deux ans et deux ans et neuf mois de détention waaye man euh, yàlla dafa def ba mu génnee dama demoon seeti ko ba ma demee seeti ko pour def ak moom interview boobu ñu ngi woon IGFM euh, dama ni ko mais yow tëdd nga deux ans et neuf mois de détention normalement dañ la waroon indemniser waa dañ la waroon jox benn ndàmpaay pour vraiment fay la li nga tëdd si sa temps boobu nga dem prison mu ne ma man euh, li ci am yépp baale naa baale naa topp kenn dara vraiment liñ ma defoon yëpp man jéggal naa leen bëgguma xaalisu kenn mais muy koo xam ni amoon na dimension baale boobu te man pour man loolu lu am solo la xëy na euh, yàlla jël na ko mais loolu également euh, bu ci toppoon état mën na am dara. Mm-hmm. parce que quand ñu bëri tëj nañ leen génne leen mais après dal leen ndàmpaay ndàmpaay bu diis ci moom. ki ñuy invité nag sax tey maître euh, mussa Sarr moment boobu moom moo ko doon défendre moom nag ca booba waxoon na ni euh, imam Ali Ndaw dañ ko jàppoon juste pour contenter maanaam France waaye euh, amul woon dara loo xam ni mën nañ ko ko toppee mhm. mu nekk nag génn àdduna bu tiis am na sax ay wax yu yuñ ci wax mais li ci am solo daal mooy ñu jàpp ni terrorisme boobu ñu doon woote fi mu ne nii euh, dara amu ci te euh, maanaam nee na furaas xëddeen kenn kenn waxatu ci sax. voilà looloo ci nekk tuuma ñu teg ci ndoddam dafa diis gan. Mhm. parce que apologie du terrorisme financement du terrorisme blanchiment d'argent détention d'armes euh, dem arrêté ko avec. tout cette armada là bi bu bi ñu déclenché mhm. pendant deux ans on nous a tenu en haleine pour ce procès la et au finish on dit que defoo dara et puis son état s'est détérioré en ah, prison bi mu génnee nit ñi dem nañu bay def quête sur internet pour jëm ko euh, faj parce que les gens ont senti que euh, Imam Ndao était victime d'une injustice donc ñu 9 avril 2018 la ñu la ñu ubbi procès am mu nekk 3 mois 19 juillet 2018 ñu acquitté ko après 2 ans et quelques mu defaat appel cour d'appel 3 ans après la cour d'appel confirme le verdict pour dire que Imam Ndao deful dara moo tax keroog bi mu gaañoo li ko gunge ci ay doomu aadama nit dund na cent ans te moom 62 ans rek la dundu te amul loolu mm. donc justice n'a pas été faite Euh, l'injustice moom lañ ci remarqué et malheureusement Imam Ndao et parti il a laissé un grand vide en tant que secrétaire général euh, de des imams de la Ligue des imams et oulémas du Sénégal mm, bu nga xam ne bu kaw Kaolack moom moo yoroon section mm, boobu yàlla na ko yàlla yërëm euh, te njaboot gi mu si bàyyi yàlla teg ci loxo amiin El Hadj Malick merci beaucoup jërëjëf dañuy jàll ci xibaar yi ñu tënk ko ñu ànd ci ak Cheikh Tidiane Diaw Imam Ndao moom nag